dal leen ak jàmm Wally Seck mën na wëy waaye bàyyi Wally Seck di Thione Ballago sekk tamit kenn demul mu des ndax ndaanaan la moom ndaanaan bii ki koy coow jamono ji mooy justice bi ginnaaw coowal faux billets yi taxoon ñu teg ko loxo làqu ko jant bi ci lu tolloo ci juróom-ñetti weer gannaaw ga ñu daal di koy génnee bàyyi ko bàyyib néganiku ba ñu bëri tàmbalee fàtte wax jooju justice sulliwaat na dossier bi ba am njàqare am ci ndax Thione sekk dafay delluwaat ca prison ba am dee tontu boobu moom la ñëpp umpale jamono ji lakk la am du lakk lu ci mënti am daala sagara ngi xeeñ yoon mu ngi topp coon Ballago Seck ngir mbirum faux yi nga xamante ne nii moom lañu daal mi ngi commencé diis lool ci ndoddab Thione Ballago Seck moom mi génnoon ci lu yàggul dara di sàkku ci yoon ngir mu jugé dossier faux bi nga xamante ne ni dañ ko ci joxoñoon baaraamu tuuma waaye mu mel ni yooyu le kaddu dafa nar wëlbatiku dalaat ci kawam daanaa dégg nag ñu naan wokkatu bu dajeeg gersu waaye bii moom bu dajeeg am pes la mu saf sàpp sax papa Thione nag su yeboo mu dem utiwaata ay sëriñ ngir defaraat cumbukaayam bu baax ndax dossier bi kat tegaat nañ ko ci kaw table chambre correctionnelle bu cour d'appel bu Dakar Dakar moom ndaanaanu musique sénégalaise bii di Thione Ballago Seck ak ay avocat am mbetteel la ñu am ci ni juge bi rejeté jugement de première instance bi héhé am na lu dese leer de ndax bu ñu sukkandikoo ci yoon Thione Seck setul ci mbir mi waa xanaa daa am élément de preuve yu bees ndax Papa Thione day delluwaat ca kaso ba doy na waar moom mi woyoon àdduna mel na ni àdduna googu nag mi ngi koy waaj a bett lu ci mën ti am daal moom Thione Ballago Seck dañul ci di wéy di wax ne mbir mi complot la ndax li ñu ko tuumaal yëpp tinul la xamul nu mbir mi demee ab complot la bu ñu def ci kawam moom loolu la jàpp suñu fàttalikoo nag ci mbir mi juge de première instance bi dafa waxoon ne moom Thione Ballago sekk bi ñu koy teg loxo amul woon benn avocat bu ko teewee ba tax mujjantal gi ñu daal di koy bàyyi bàyyi néegi ni ko ngir mu delluwaat ca këram ma moom bàyyiwaale nag li ko yoon doon toppee mooy association de malfaiteurs maanaam bokk ci kuréel guy def ñaawteef contrefaçon de signe monétaire maanaam jëfandikoo màndarga xaalis ci anam bu ñu soppul blanchiment de capitaux maanaam rawal alal gu lewut ak tentative d'escroquerie maanaam njuuj njaaj lii moo taxoon yoon teg ko loxo ba ñu tëjoon ko fii lu toll ci juróom-ñetti weer ginnaaw taxawaay bu yaatu bu ay avocat am amoon ci mbir mi ci lañ ko bàyyi bàyyi néganiku boobu ba léegi nag mbir mi seddoon lool jamono ji mbir mi ñëwaat dinañ ci delluwaat a ngeen ngir indi leen yeneeni xibaar jërë ngeen jëf